suñu équipe Sénégal euh, gannaaw bu ñu jëlee Coupe d'Afrique ñoo ngi préparé pour dem ci Coupe du Monde ban message nga am pour équipe bi avant ngay am ci les deux gardiens yi nga xam ne no non xamaguñ sax yan gardien la ñuy sélectionné ñu war a dem mais ban message nga am pour équipe bi ñoom ñu war a représenté Sénégal ci euh, World Cup Qatar 2022. non équipe bi moom macha allah joueur yu am talent joueur yu euh, joueur yu joueur yu am talent ñoo ci nekk bon li ma leen xanaa li ma leen mën a wax mooy gën a solidaire parce que. solidarité rek a ñu mën a soriloo ci coupe du monde bi parce que euh, équipe africaine yi ba ñuy xool macha allah ñun ñoo ci gën a ñun ñoo ci gën a baax équipe et tout moo tax euh, dama leen di li ma leen di jox comme advice daal mooy ñu gën a solidaire rek. Mm-hmm. comme niñ demee kaan bi solidarité bokk na ci di tax mo gagné kook lépp. Mm-hmm. moo tax loolu laa leen conseillé loolu rek laa leen conseillé parce que. par rapport par rapport à loolu leneen leneen lépp mu ngi ci quoi. Mhm. te bañ a naagu tamit comme dab. Mhm. Euh, ci équipe wala ci ñaaxi gardien wala trois gardiens yi war a dem. Mhm. ban message nga am pour ñoom en tant que yéen a bokk profession bi ngeen def gannaaw ñoo la ci jiitu ñoo la ci mais yow ban am pour jox leen ko en tant que jeune pour say grands frères a dem mission. non gardien yi wala deux dem yëpp euh, premier conseil bi ma leen jox mooy. ñu déggoo seen biir ak lu mu mënti demee kuy joué ku joué wul yëpp parce que loolu dafa dafa important dafa important si équipe comme ñaari axe yu déggoo tamit dafa important si équipe ak nu mu mënti demee kuy démarré na mel ni keneen ki moo démarré. Euh, en plus ñu lead équipe bi xaw nan laa ko mën a wax ñu guider équipe bi parce que ñu gis kenn mënu koo gis ñu lead équipe bi gëm seen bopp. Mhm. gis nañ Edouard Mendy trophée bu mu ci góor sénégal lu lu jara ñàkk a xeeb la parce que lu mag la lu mag lu mag la jël gardien yu bëri ñu ngi koy bëgg jël. Mhm. moo tax ñu am confiance suñu bopp solidaire ak euh, guider équipe bi rek. Mhm. ñu dinañ sori bu baax a baax a baax ci coupe du monde